mboolem xaritam yi nag bu ñu fexee rek ba daal di mucc nag ci boobu lee nañ tax na nag ma ngay daal di sàkku daal bu sañoon lépp loo xamante ne ab commentaire la ñeel coow nguur gi ak Barthélémy Dias ñoom ci seen jëmmi bopp nag duñ ci duñ ci jàppale ndax na nag dafa jàpp ne mbir mu nu boo xamante ne rek moom la régime bi daal di jël nag moom ak Barthélémy waaye nag nee na ñoom ci seen jëmmi bopp jamono ji ñoom parti bi di Pastef la leen di xaar bari na bari goo xamante ne rek jot na nag ñu daal koy bàyyi xel ba tax na nag nee bu bu sañoon moom Amadou Ba euh, commentaire yi nga xamante ne rek ñu ngi koy def depuis ba Barthélémy Diaz bañ ko joxee convocation mu nar a wuy ji foofu ca cour suprême ba nëga ni rek ñu bëri nag ci askanu Sénégal rek ñu ngi cay commencé nag di ci sànni seeni de sel euh, di ci am luñ cay wax nee na nag jamono ji ah, waruñoo jël seen temps yëpp focalisé wu ko nag ci mbir mu nu mel ndax jàpp na ne boobule dossier waroon nañu ko jeexal bu yàgg yàgg ndax mbir mi nag ba mu dateeg 2011 ba nëgëni waaye nag jamono jii nag dañoo mel ni rek dañoo bëgg nag yeewaat boobu boobulee dossier dara nag warul ko lu dul rek ñu distraire gars yi ak responsable parti Pastef yi rek ba nag du ñu mën a fexe rek ba concentré wu nag ngir récupérer seen fichier parrainage bi moom nag la mu dal di xam ne rek ay fan képp rek moom moo des ñu collecturer li nga xamante ne rek moom mooy dépôt candidature yi da kii di Ousmane Sonko ba nëgëni rek moom jotagul sax fichier candidature kon nag coowal Barthélemy Dias ak nguur gi ba mu déranger benn patriote wala sax buñ ci concentré wu de trop ba mu fàttali leen li nga xamante rek moom mooy seen mission di kàddu yi nga xamante ne kii di Amadou Ba daal koy yëkkati népp yi démb ci aljuma ji rek jagleel ko ñi nga xamante ne rek ñoom la bokkal parti bi jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de ngir amaa yeneen info